Euh, gis naa benn bokk yaakaar def nañu point de presse di répliquer mais man kii waroon tontu du benn bokk yaakaar. Mm-hmm. bu dee tontu war naa am kay DGE moo war a ñëw wax ak sénégalais yi ak mi ak téléphone ak ak micro yi ak presse bi ne leen non non non li Barthélemy di wax amul ah parce que lu ci yoonu benn bokk yaakaar. Mm-hmm. ba ñu jóg leader yi di cest à ñoom le fait ñu wax rek. c'est suspect. voilà voilà c'était pas pertinent comme démarche. waaw du stratégie man je me demande comment ces gens réfléchissent. on a ñu ñu duut ñoo waroon wax effectivement. bon sama xarit bi ndeysaan Bamba maa Fall maa ngi koy indi ziar grand maa ngi lay nuyu bu baax. Mm-hmm. j'étais très gêné bi muy bi muy def discours j'étais hyper grand loolu moom ba may ma ko rek j'étais j'étais très gêné. mais yow tout temps bu ñu waxee yow Bamba doo nangoo wax ci ay waxam. quoi sama ndeysaan sama nit la nit bu baax la ndeysaan dafa dama jàpp dafa juum rek ci li mu def ma il est libre nag. ka nekk ka magum jëmm ba jël décision mhm. moom kenn mënu ci dara. Mhm. mais euh, le fait que population Médina yi jël la addule la doole la ne la ñun ànduñoo ak ñii dañooy xeex ñii. nga tourné mhm. jël affaire bi dem ànd ak ñooñu ça ça pose problème. quelle que soit les la raison ou les raisons mais les gens sont libres population yi aussi dañu war di jël seen responsabilité ci yooyu. maanaam beneen maire bu ko fay defati noo yow doo dox suñu dëkk. doo dox suñu suñu zone doo fi circuler parce que doo ko def di ñu di ñu di ñu bernek ba pare di ñu di ñu noon ñaawal quoi di wax ak ñun di yéeg di dugg di génn ba pare di gérer suñu ay business mënta ne le rapport de confiance a été détruit donc dire que <clears throat> malheureusement c'est la vie est ainsi faite les gens sont à gauche à droite c'est comme ça la ma wax benn bokk yaakaar stratégiquement ñoom waruñu wax ci loolu ne leen teg mais c' est l' éternel empressement d' un pouvoir boo xam ne yàkkamti na gis adversaire am ci ci suuf daal ne bëreet gis ngeen de waaw waxoon nañ leen ko voilà di njaaba njallee di kii di reetaan di dax di kii non Sénégal moo toll foo xam ne population yi mer nañ mer bu toll fu sori te li fi xewoon au mois de mars j'ai malheureusement j'ai entendu euh, Bamba sur un ton san euh, li fi amoon au mois de mars te bi muy am mois de mars yaa ngi bokkoon ci camp opposition bi. Mhm. ma si j'ai un problème. Bamba grand yaa ngi bokkoon ci opposition bi bi loolu di am. ah apparemment en tout cas donc si tey man ñaanuma yàlla li xewoon mois de mars amaat Sénégal. yàlla na jàmm rek am fi. ñaanuñu ko yàlla. sauf que nag jàmm moom ci kaw dëgg lay lalu. Mhm. saa nekk ci musiba maa ba kum ba nannoo jàmm rek waa ji yor yatam di la dóor rek nga naan jàmm dootul jàmm loolu moom dangay jëngu rek la ko Sénégal tool na fa nga xam ni lu ñu ñaan ñaan ñaan jàmm. Hmm. ñu ngi ñuy yóbbu fa nga xam ne bu nu jógut lijjanti du baax newuñu kenn tojal xeexal yàqal defal lu bon dañu ne il faut être nguur boo xam ne danga ko délégué sa pouvoir ne ko sëñ bi dama laa dénk man Sénégal ni nguur bi di doxee nii. mel ni ku moom sénégalais yi jàpp leen fii la xoj ñii la téye. parce que da nga jàpp sa bopp sénégalais yow. Ah. waaw mu ngo pour yow sénégalais nga. mu ngo donc xoj la nii ba pare di def lu leen neex hier j'ai regardé les partisans de Benno Bokk Yaakaar je me suis dit mais mais ñu mais ñii mais est-ce que est-ce que ces gens se sont daal di ne élection territoriale yi ñu génn locales yi dañ ñoo dóor dóor yu metti ci fii ñoo toog di wax <laughs> yéen nan ngeen mën a comprendre ndakaaru jal job ñu ne leen dakaar ni ñu exclure woon exclure woon Yewwi Askan Wi ci la élection locale biir Pikine la capital sénégalaise ki ka gagné de plus de quatre-vingt-dix mille voix no moom parrainage dafa sooke baaxul moom moom Sénégal Dakar waaye reconnaître luñ ko alpha ou bêta ñu teg ko ci parité ñu teg ko ci feneen na ci yem no c'est damay wax benn affaire li gën a soof si àdduna mooy nit ka la jàppee ab ak wayadi nit ku la manqué di respect du respect gis nit bu la manqué respect yow rek ñàkk mën lijjanti kenn mënu ko lijjanti te population sénégalaise nguur bi fi nekk daf ñuy manqué respect ci lu bari sarax nañu ñu bërki démb maanaam dañuy agressé dañuy def la bon waay la ñaaw la soof la salte la nëb lan noo def. c'est-à-dire ce pays est devenu nauséabonde de mauvaises intentions par la faute d'un régime qui désacralise nos valeurs et vertus qui nous anéantit à petit feu qui nous détruit def ñu ay nit ya ya ñàkk jom def ñu ay nit ya ya amut dara nu leen jàppee rek noogu noogu la dana leen def nii baajaloo leen kii tranquillement et puis après on avance bon on revient on vous demande vos voix le parrainage la CEDEAO a dit du yoon c'est antidémocratique mm-hmm. muy 2019 di 2022 non nguuru Sénégal they don't care about CEDEAO quand ça les arrange mm-hmm. heure bu leen neexee d'accord parce que arrangé na d'accord ñu et pourtant président Macky Sall bi muy daaneel Yaya Jammeh nan la wax CEDEAO la wax ah vous savez c'est la CEDEAO tey CEDEAO ñëw ne la une décision supranationale mu ne non insister ci sa parrainage éliminer il y a 39 candidats aux élections en Somalie xule 39 candidats présidentiels da nga wax bi 39 xam nga ñooñoo jël coupe bi ana parrainage ñun su maanaam def njuut njaaj moo moo jekkul Sénégal moo toll foo xam ne foofu ñu wax lu ñoo yëkk mhm. nit ñi di ko yëkk la bon lanu loo def lan lan ñuy def la bon génne plateau bi bu leen <laughs> nguur bi billaahi wallaahi tallaahi du nu ay devin de xamuñu dara mhm. waaye yàlla la mu waxoon bu dañul te gëw ma ne dana deñ daa ngeen ko gis la bon ngeen noo def. merci comment imaginer nit ki la gagné ci élection locale cinq mois après dëkk bi gën a tar nit ñi mere la faites vos sondages ngeen yor seen service de renseignement généraux ñu xamal leen ne sénégalais yi mere nañ leen. Mhm. ngeen ne yéey yaay ne du ñu bokk ci liste parce que lan département yi da ngeen ko bëgg a gàddu si vous éliminez dix huit départements jëm kaw ci quarante cinq quarante six départements qu'est-ce qui va se passer mooy vous voulez rester à da ngeen noo bëgg def ay borom ñaari tur du nu ko nangu. si nii wala si nële yàlla nañu yàlla àtteeg jëf-jëf bon yàlla na yàlla roof leen baax baax ba ñu rectifier le tiir si vous éliminez cette liste là dans ce pays là teg ko ci ay soit disant loi quelque ou des gens nous disent oui vous savez la loi c'est la loi mm -hmm. la loi a été faite par qui xulil par l'individu boobu kii def loi bi bu dëngee nag mm-hmm. ñun suñu majorité ñu jox leen def leen ay député ngeen ne noo Macky moom fi teg votel président Macky Sall mu bëgg ngeen jaxase loi yi jaxase carte yi daal di koy def texte normé ko nu normal ngeen normé ko imposé ñu ko bisa ngi ñëw.